kon xaraf waraab bi wa topp lii foog ma fa xel ba mm-hmm. xamsa lañ koy def mm-hmm. kasaaka naka noonu saani layi nay ni mm-hmm. aji ñaareel ñaari xarafi liin mutlaqan de lu ñu boyal ñaari waaw la ñaari yaa la waaw ku ñaareel xamsa lay doon xilaafan ci wuute lil axfasi fii ma ada waaw wéy nii ci waaw ala xos nee buy ñaari waaw kon waaw gu mu jiga mën nañ ko bàyyi muy waaw ñu doon ñaari yoo xam ne iktana faa peeg nañu mm-hmm. madda ma faa xela xëccaanak ma faa xel mm-hmm. bat bi dafa nekk jamo taksir nattoo ma faa xel mm-hmm. alif ak ma faa xel gi xarafu ràgg ko jiitu xarafu ràgg ko topp xarafu ràgg boo ko topp mm. hamza lay doon gannaaw mm. li mu fa ñaari xarafu ràgg bu pegg mm. moo xam fañ bokk de ñaari wala ñuy waaw wala bu jëkk bi fay yaa bu ñaareel bi di waaw wala bu jëkk bi fay waaw bu ñaareel bi di yaa yépp a jeem mm-hmm. ibnu malik de misaal ne ka jamihe nayifa ni ki jamool baatu nayif bi firi tegal nayif nayif soo ko bëgg a nga dindi li daxam bi xam nga nayif la nayif nga bëgg a tëggaw def jamo da ngay fataa nuun fataa yaa andi ma faaxel muy naya yif sa lu wane liif gi ñaari yaa ko peeg yaa ko jiitu yaa ko topp gii day doon xam nga ne naya yif bind yaay if bind mi dafa sew lool gisuma ko bind yaay if ndax loolu di tegu ak awwal eh. awwal eh. boo ci bëgg a liggéey da ngay dindi li bi xam eh. bi lii mooy awwalu du lii la soo bëggee tëggal dayab jamono da ngay fataa hamsa fataa waawam gu njëkk gile andi alif ak ma faa hen fi kasra waaw muy awawil gis nga lii foog ma faayel bi ñaari ko fekk eh. waaw gu mujj gi day doon hamsa eh. nga ne awa il eh. yaa ngi koy gis baax a baax ak sayid walla ah. sayidun sang saa daye sootu say wit moom la woon waaw ak yaa daje ku jàkk sukkoon ñu sot waaw yaa hmm. ñaari yaa daje ñëli bi xam naa sayid hmm. waaye baat bi sayid hmm. waa da nga koo delloo ci lam doon sayid dégg nga sayidu fay xel min saada yesoodu boo bëggee tëggal daal jamono da ngay fataa siin fataa yaa andi liif ak mafaahel mooy saya wit mhm. gis nga yaaxa jiitu mhm. waawa topp mooy ñaari xaraf rag mhm. yoo xam ne dañoo peeg ma duma fa xel kon waaw gii day soppeeku hamsa ñu ne saya it ay sang jàng nga ñaari yaa ñaari waaw jàng nga itam yaa ak waaw bu dee waaw yaa itam noonu la ak lan sawa it ndax loolu nga ci teg aji rëbbu saa it aji rëbbu faa yit aji rëbbu delloo hmm. ko hmm. nga bëgg fa hmm. ki soppeeku waaw nga indi alif ma faaxen muy sawa yit ki waaw ak yàlla ki yaa ak waaw la woon ki waaw ak yàlla da ngay soppi ak hamsa nga ne lan sawa it ay wéy rëbbu lu ci tegu asluha sawaid hmm. walla bale asluha sayawid hmm. lu ci tegu noonu asluha sayawidu wa sawaid wasa saas na tayawin hmm. waxuñ taya in ci day wan kooku du lu xiyaasu baat bi xamul ak la waykat wax ne xarraka an taqaarabat avant hedi wa raayta dahra saa dawairi xanaaye saami wa araahu saayiri wa kahala al aynayni bil awamiri wala wa amma qawluhu xarraka nax na la an taqaarabat bu jege ñaanteet abahiri xëy na samay gëlëm la waan raayta ak nga gis addahra jamono sa dawaayiri may boromi xew-xew xanaa mu lunkal xedaami samay yàq hmm. wa araahu gis naa ko saayiri mu dal sama kaw hmm. wa kaxala mu tusngel ni ñaari bët ñi bil hawa wiri hawa hmm. wir ñaari waaw ñoo peeg lii foog ma faaxel bi te waxuñ hawa il sot waaw gi am gu ñaari gi am sa comme awa wil nañu waxoon awa il mu ne xamal ne cosaanam hawa wiir ndax jamoo bi hawaar gis mu ne faas lu hawa wiir la li annahu jamu hawaarin kon mafaahel ba dana koy nattoo ñu def ko mafaahel ndeg loru wëy su boobaa buñ dikkee fii ci ibdaal xatte mafaahel rek lay xamee kenn du lu safaanoo mooy la wëykat wa fiihaa hayaa iilu usoodun wanamir fiha nekk na ci moom haya ilu ay jaboot usoodun wanamir xam nga haya haya haya yilu wala haya wilu mu war nekk haya ñu ne ilu loru way tax ñu ne def gi ko def ma faaheel deg loru way teewu ragal nañ xatte bi ma faaheel moo ko moom ma faaheel bokku ci mafaahil buñ ko defee mafaahil de loru wëy lu mm. tax mu bokk yi mm-hmm. mafaahil buñ ko defee mafaahil de loru wëy lu mm-hmm. te moom xatte bi rek mm-hmm. kama fi qawlihi siratu lil isbaa dañoo dolli asluha haya in sira dollees na alyaaw lil isbaa ni ki mu dikkee ca la waykat bu wax ne tan fii ya daahal xasa fi kulli haajiratin nafiya darahimi tan qaadu sayari fi tan fii dana dàq eh. yadaaha ñaari tànki kanamam yi eh. alxasa jembaray fii kulli hajiratin ci wépp njooloor eh. nafiya darahimi kem dàq ak ay dërëm tan xadd sayarif yi ci tëgg maanaam dóor ak tëgg sayarif la woon ndax mufrad bi sayraf la waaye dañoo dolli yaane sayarif ndég wéy bi kazaaka naka noonu saani la nay ni aji ñaareel ñaari harafi liin mm. iktana faa yooyu feeg mm. nañu mm. madda mafaaxel xëccaan ak mafaaxel baddi buy jamoo taksiir jam muntahal eh, buy buy tëggal jamoo aliful jamhe bi ñaari harafi rag peeg ko kon bi ko topp hamsa la wara doon ànd ak mafaaxel nag lañ wax aw xuñ mafaaxel ka jam hen na yiifa bone mm-hmm. na yaa yiif mm-hmm. taan na yaa mm-hmm. na nga fataa warudda te na nga mujal alhamsa hamsa yaa an muy yaa ci lu xam ne point la raggalees na ko la man ci la wal maddu siida saalisan fil waahidi hamsan yura ban jàngoon démb mu ne baat bi buy muhallul laami hmm. xam sa ngay soppi ku ñetteel ki hmm. danga koy fataa <coughs> nga delloowaat ko ci yaa hmm. <coughs> dafa sew boobu daana gisu ma ah, gaw jox ko téere ba ñu gis kii téere bi dafa sew boobu indi jox ko bële mu mën jëfee bi an kaanat hamsatan aw waawan aw yaan mubdalatan fil mufradi xam ne cat li hamsa la woon walla waaw la la hmm. walla yaa la hmm. handa dañ ko soppi ci mufrat hmm. yaa kon baa booy jamhol dañ ko def muy yaa niki baatu xati'a xati'a xam nga dañ wax xatiya sooy jamhol xataaya ngay wax baat bi nii mooy mufrat bi bindu kay beneen xamu beneen bi nu koy amul xam nga nii la xas yi atun soo bëggee tëggal doyal jàmm Sufyaan bu ñetteel bi dégg nga xanaa bon mu jox la xataa iu mm-hmm. dégg nga mm-hmm. boo bayee ko ci kasra gi hamza gi ngay soppi yaa mu jox la xataa iu mm-hmm. pour nga xoyofal hamsa gi kasra ni ngay fata mu jox la xata ayib mu jox la xata ayib dégg nga su ko dee fata gile yaa ko topp ba fara gi bu maasee la ko jëkk fata dañ koy fata muy xata a jox la yaa ngi koy gis kii la kii hamsa la kii liir la ba niru ñetti liir lool nga delloo ci hamsa gi la ji yaa mu jox la xataa yaa benn ñaar ñett ñeent juróomi liggéey nga ci liggéey nga door am xataa yaa ba ci liggéeyagul dara xataa yi ula woon waaye liggéey ba juróomi liggéey lay yaa ngi koy gis ak qadiyatu qadaya baat bi nii la woon qadiyatun léegi bi nga bëggee tëggaw dayo jamo ni mu war a doon mooy lii qadayiyu boo ci liggéeyee ku dara lu lay qadayiyu xadaa yii yu boo ci liggéeyee bu dara loolu lay doon mm-hmm. su ko defee yaa kii xëccaan nii ci mufrad mm-hmm. moom ngay soppi hamsa wal maddu siida saalisan fil waahidi mm-hmm. hamsan yuraa fi mislikal qalaaidi jàngoon nga ko démb mu jox la xadaa iyu xadaa iyu yaa ngi koy gis su ko defee hamsa gii nga kasara te baxee ko hmm. ci yaa moom ngay xoyo falee fataa ko mu jox la qada ayub qada hmm. ayub hmm. ki xarafu ràgg bu maas li ko jëkk fataa danga ko def muy diif mu jox la qada a léegi si bu salaasi alifatin moo am hmm. nga jël hamsa gi soppi ko yaa hmm. mu jox la qadaaya ñeenti liggéey nga ciy liggéey hmm. nga doog a am qadaaya ba ci liggéey bu dara qadaa yi yu la woon nga liggéey ci am qadaa yi dellu ci liggéey am qadaa yi dellu ci liggéey am qadaa dellu ci liggéey ak si fi nga soxla am qadaa yaa Hmm. ak matiyatun waruwaay hmm. cosaan li matiyatu moom la hmm. parce que mutu mooy gànnaay matiyatu waaw ak yaa ñoo dajee ku jakki sukkoon ñu sax waaw gi yaa ñaari yaa dajee ñu sax daan daan matiyatu rek ay eh, baat di matiyatu moom la woon boo koy liggéeyee nag da nga koo delloo ca lam doon kon pour nga def ci tëgg euh, jamono da war a nekk mata yiwu ba du ma si liggéeyagu dara mm-hmm. loolu mm-hmm. mata yiwu mm-hmm. su ko defee yaa gi mooy almaddu siida saalisan fil waahidi da nga ko def muy hamsa mu jox mata yiwu yaa ngi koy gis de bu ko ko ci kasra dikk ci bi mu nekk mutatarrifa nga def ko muy yaa mu jox mata yiwu mata iyu su ko defee pour nga xoyofal hamza gi da nga koy fata mu jox la mata iyu dégg nga su ko ki arab ra gu la ko jëkk fata bu fata waaye mbokk mbokk fata liyu da lay jox mata a dégg ko kii la kii hamza la kii liif la sibu salaasi alifatil mu am nga jël hamza gi soppi ko yaa mu jox la mataaya dégg nga benn ñaar déedéet waaw benn ñaar ñett ñeent juróom juróomi liggéey nga jaam ba doora mataaya yaa ngi ko gis baax a baax mu ne wal aslu mooy xataa yi u xadaa mm-hmm. yi yu mm-hmm. mata yiwu mm-hmm. li annahu min al mutubi xulibatil maddaatu hamasatin xëccaani yoon ci mufrad eh. lañ def hamsa kama marra eh. su ko defee muri lan eh. muri xataa iu xadaa iyu mataa iwu gis su mal hamsatul axira yaa an fi xataa iwu buy si xataa yu hamsa gi ñu ne ko mu yaa muy xataa iwu xataa yiyu wal waaw fi mataa yiwu yaa an waaw ci mataa yiwu ñu def ko muy yaa muy mata yiyu eh. muy mata iyu kon layo eh. dina ko baax a baax eh. li tata li li tataru fi a ngir seen ak peggu baa da kasratin ci gannaaw kasra su ma futti at alhamasatu salasa muy xataa ayu xadaa ayu mata ayu dina ko baax a baax li tax fi bi ngir xoyofal fan fataha maa qabla liya li jëkk yaa fataawu Eh. waye te loola mu taarikatun aji maasu la eh. fa qulibat alifan eh. su ko defee mu jox la qataa qadaa mataa fajtamaha dadi dajee sifu salaasi alifatin lu mel ni ñetti liif dajee fa ubdilat ilham samasaatu yaan fasaara mujj qataaya wa qadaaya wa mataaya baada xamsati amalin ci gadaaw juróomi liggéey fi tarafayni ci ñaari fen ñi buy bu jàkk bii di qataaya ak bu ji bii di mataya eh. juróomi liggéey nga ciy liggéey eh. nga door a xàgg fi nga soxla eh. wa arbaatan fil wasati buy bi ci digg bi di xadaya ñeenti liggéey nga ciy liggéey nga am nga soxla kon ñu jàngal lool ba beneen yoon